mbokk yi jërë ngeen jëf euh, yéen ñi ñuy déglu ak euh, di ñu bàyyi xel euh, ci Def Gis TV di leen nuyu bu baax. bee paase sax déggoo leen ñu comme koor gi moom réew mi sax ni mu demee la mais koor moom ci yoon bu lépp na woon tekk réew mu normal bu mu ci nekkoon sax yii yëpp mën na ñàkk waaye comme doonoo nekk ci réew moo xam dafa anormal comme man ni mu koy waxee tooñee sama yenn xaritu chroniqueurs yi ak journaliste ne leen boo leen bëggee analyser Sénégal comme réew mu normal rek da ngeen di nax seen bopp loolu tax réew mu anormal nag dañ koy analyser comme réew mu anormal dama mës dégg ci weeru mars mais loi da koy bañ boobu booy ñi ngi taal Auchan yi di yàq total yi dëkk bi dara doxul. booy bi benn journaliste dégg ko micro kam mu ne ko non. danoo nekk ci réew hors la réew hors la moom day am ay citoyens yu hors moo tax ñuy def li ñuy def. naam sax li muy def kenn àndu ci. waaye lu tax ñuy wax loolu dañ koy wax jëme ci arrestation yi parce que am na message boo xam ne dama ko bëgg a lancer jëme ko ci Ousmane Sonko tey waaw bu dee ne nag euh, képp ku ci jot mun nga ko jottali wala boog ñi ko jege jot ci ci jàpp yi ñuy jàpp ak arrestation yi bari yi ak usman Sonko noppi gi mu noppi ak dal gi mu dalal sa Seck mu jar waxtaan mais aussi mu jar bàyyi xel jàpp yi lu tax euh, bettuma waxuma militant yi ñu jàpp wala activiste wala ñeneen daf ci am benn euh, responsable boo xam ne tey jii ku jege Ousmane Sonko la mi ngi sax ci loxoy yoon yàlla dafa dogaloon ma dajeek moom bi ñu dajee ñu am temps wu toog waxtaan bis boobu waxtaan wi jubóowuñu ñun ñaar parce que li li may wax ak moom li mu jàpp bokkul quoi parce que man nag ku ma toogal lu ma gëm laay wax ak ko mën a doon ma ni ko jàpp na nañu Amidia jàpp nañu diw Cheikh Omar Diagne jàpp nañu diw Abdou Karim Gueye wax ko ñi jàpp ñu bari ba ci Pape Alé parce que jamono boobu mooy jàpp bi njëkk a jàpp Pape Alé jamono boobu laa dajeek moom ma ko man li ma àndul mooy ñi jàpp Massamba ak gisul leen boo leen jógee rek wala ngeen yëngatu rek Ousmane Sonko lan woo Ousmane Sonko moo war a dem tribunal moom lan woo wala lii alors que nag bu dee noonu nga ni doxee Ousmane Sonko moom kenn du ko jàpp ndaxte gars yi ko te xalaatuñ ko ndaxte danoo xam ni jàmm moom mooy jàmmi réew mi waaye fitnaam mun na doon fitnaay réew mi moo tax jàpp Ousmane Sonko moom nguur gi même bu koy xalaat sañu ko man ko waaye yéen ñi wër Ousmane Sonko à commencer par toi moom na ni kenn du ko jàpp ku la ku tey koo xam ne booy wax ak moom daraay fitna ku lu sib nekkul ci moom man ko sa dal gi ak sa teey gi nga foog ni bis du ñëw ñu tuumaal la jàpp la ma ne ko jàpp nañu diw diw diw man ko bis dina ñëw képp ku wër Ousmane Sonko ci entourage am dina la teg loxo boobu jàppagunu Fadilou Keita mënuma noonu loolu du am parce que ñun fi ñuy teg suñu tànk xam nañ ko te ñun suñu stratégie ñu teg man ko loo yaa ngi mel ne kuy wax ci réew mu normal loolu laa ko waxee mais li ñu ne leneen la maanaam stratégie bi gars yi teg mooy fexe ba Ousmane Sonko wéet ci xeex bi doon cundung parce que bu ñuy wax un parti politique Ousmane Sonko mën na doon la leader mais daa am ñuy xalaat pour moom man ko Fadilou Keita bu nemmeeku tur dinañ ko jàpp boobu jàppagun ko wax naa ko man ko yow mii bis mun na ñëw ñu jàpp man ko ay El Malick yi nga gis gars yi naan danoo sedd ak danoo yor man dina leen jàpp moo koy limal di ko limal di ko limal ñu bari ba ci ay Kopar Express boobu ay Ousmane Diagne ñi ngi ci kaso bi ma ne ko ñoom ñëpp jàpp gi leen jàpp c'est stratégique parce que doonoo jàpp ni ñoom ñoo fi téye Pastef parce que gars yi seen problème yëpp doonoo jàpp ni ñi nekk ci nguur gi Ousmane Sonko waxoon na ko ci jamonoy Adji Sarr Ousmane Sonko mooy na ngeen ma respecté Macky Sall damaa respecté wul di nga ñoom doonoo jàpp ni Ousmane Sonko du dara pour ñoom buñ jàppee Diomaye jàpp Fadilou Keita El Malick jàpp euh, Waly Diouf Bodian jàpp Massamba jàpp Karim Gueye jàpp Cheikh Omar Diagne jàpp keneen ak keneen jàpp Pam Ndiaye ci kaso bi jàpp Pape Alé maanaam jàpp yooyu ñuy jàpp pour ñoom bu réussir loolu lépp Ousmane Sonko du exister wala du mënati dara la ma waxoon waa jooju nag tey jii bu déggee chronique bi dina xam ne man maay wax taw waxoon naa ko ni dina la jàpp mënoo man defuma dara si man ko tollootuñ ci yaa def wala defoo man ko ñun ñi rek di wax da ngay dugg ci oto wala nga dajeeg nit man bis bi ñu nit damaa koo xam ne tribunal lay liggéey na ma noo maytul ma ne ko man lu ma def bay maytu man tooñ ma kenn saagoo ma kenn duuralu ma kenn fenalu ma kenn lii ni mun ma tollootuñ ci yaa def wala defoo sama xarit la tribunal lay liggéey keroog ma dajeek benn góor goo xam ne extérieur la jóge italien ah, bu maîtriser Sénégal def na ay at Italie yu gën wàllu dundam ñu daje toog mu ni ma gars de dafa mel ni ab liste lañ yor dañuy xool moment bu ne kan moo gën a jekk ci jàpp rek ñu jàpp ko ma ni ko mais ku ñuy jàpp day def dara mun a nekkatuñ ci def dara góor gi wax ma loolu kon ñaari nit wax nan ma ko te ay nit lan yu seen bopp ibbeeku ci wàllu yoon xam li xew yu bari loolu nag li koy dëggal mooy jàpp gi ñu jàpp Pape Ndiaye ak charge yi ñu teg ci kawam jàpp gi ñu jàpp kii di Cheikh Omar Diagne wala Karim Gueye wala keneen ak keneen waaye bi ci mujj mooy Assane Diouf pourquoi mooy wax ci Assane Diouf Assane dama ko xam parce que man je suis de Guédiawaye fa laa juddoo Assane Guédiawaye la dëkk Assane daa am fu ñu daje toog waxtaan presque waxtaan ëpp na une heure de temps booy xamee naa la de comme moom noonu muy waxee quoi gis naa la ci télé bi nga naan ma bàyyil sa saaga yi parce que Assane ànd ci ay saaba saagaam ak yooyu man dama ko daan bi yi ngay saaga daaw moo ko seetaan parce ma saataan kii saaga mu ne ma léegi tax ma doon agité wu quoi man ko ak lu mën a am saaga moom day wàññi darajay wax li Cheikh Anta doon wax naan da wax lu mu am am daraja boo ta toftalee saaga day wàññi daraja ji Assane na ma léegi sax bàyyi naa xorom yi wàññi naa kërëb-kërëb expliqué man ko Assane ni moo gën mun nga wax sa soxla te doo ko yàq naqa saaga ci waxtaan wu yaatu mënuma jamono yu Omar gars yi ñi ngi may rëbb bu baax erreur rek la ñuy xaar ma def ko waaye du ma leen man fu ñu ko defee fii ba 2024 ndax du ma ko nangu parce que xeex bi nekkatul dem di jébbal gars yi sa bopp ñu lay jàpp parce que daf ci am ñoo xam ne mu limal ma diw ak diw diw diw diw diw ñooñu waruñu dem ñu leen di téye parce que ñooñ seen combat ci biti lay amee njariñ parce que ñooy sensibiliser nit ñi te Assane Diouf dans la sensibilisation surtout contre le troisième mandat Assane Diouf da si doon joué rôle bu am solo ñu xëy ñu ne jàpp nañ Assane Diouf ci xibaar avocat am génn ne liñ jàppee Assane Diouf mooy ab vidéo bu mu defoon ba Samba sàll daan ko ci ñu bàyyi ko ñu génnewaat vidéo ba ci TikTok woowaat ci Assane Diouf juge Maham Diallo téye ko ci loolu mooy wane ni nag ñi ngi ci leneen lu dul yoon léegi la ma góor ga waxoon dëgg la mooy dañuy ciblé li bi tey nañ jàpp diw tey nañ jàpp diw tey nañ jàpp diw bu ñu yàggee jàpp dinañ dem ba jàpp ku def dara ñëpp jàpp ni deful dara loolu nag day dem yóbbu nu ci pays hors la loi kon ñii di waa Pastef ñii di patriote kii di Ousmane Sonko foofu laay wax ak moom ci message mooy Ousmane Sonko bu dee di da ngay nalaw yeewul bu dee nii da ngaa feebar jugal soox ñun ñëpp daa am am na lu ñuy sooxaale waaye li ngay seetaan gënul ci yow te gënul ci sa parti yow xamul lan moo la jikk génn di wax rapport de force yow loolu moo la jikk kenn waxul nga yee fitna de kenn waxul nga yàq parce que réew mi ñenn ñi dañoo gëm ni yaa koy mujjee kon réew mi yow bu yàqee arrangé wu la waaye nag seetaan ñuy rocc ci Pastef benn benn activiste ñu jàpp Copper Express ñu jàpp journaliste ñu jàpp euh, léegi directoire bu Pastef maanaam parti bi ñi la wër ñëpp secrétaire général communication sécurité coordonnateur Pastef ñëpp téye na leen ñi ngi amlante ak yoon te stratégie bi ñu ci lal bu nee Ousmane Sonko du yow waratoo wër réew mi parce que ki doon coordonné Nemmeeku Tour téye ko di Fadilou Keita ñu ne El Malick Ndiaye ci wàllu communication yow waratoo jugee dakaar dem ca dëkk ba nga cosaanoo naam communication sax foofu doon réer ndax de communication mën nga ko def ak téléphone sur ak réseau yi léegi soxlawu ngay déplacé wu lu bari. ñu ne kii di Bassirou Diomaye fay pour man jàpp bi dafa stratégique mooy bu ñu jàppee Diomaye secrétaire général ak Diomaye man mi ma dégg xam ne bopp bi baax na Diomaye du koy nalaw bopp bi baax na waaye boo ko dégloo dégg de xam ne boroom xam-xam mooy wax waaye nit ku am ay pexe kooku buñ ko jëlee téye même buñ ko tëjul que Diomaye buñ ko tëjee impôt domaine mën na yëngatu te loolu arrangé wul nguur mais mën nañ tee Diomaye xëy bàyyi ko def ko sous contrôle judiciaire Diomaye rôle bi mënoon joué bitim réew dafa am solo maanaam fu Ousmane Sonko mënul woon teg tànkam Diomaye mooy ki fay teg tànkam léegi ñu tee fi Diomaye tee fi Ousmane Sonko El Malick ñu koy yemale ñeneen ñu jël leen ci kaso bi ñun mënta tëj dal leen yemale restreindre leen ba ñoom duñ mën a yëngatu kon stratégie boobu ñu teg ci Pastef ngir tëj lépp ak bracelet yi mu génnee parce que leen waxoon naa ko fi ñu naan ma du problème xaalis man loolu gëm enjeu xaalis la bi heure bu Pastef jugee pour dajale xaalis dinañ teg gàllankoor ci seen kanam heure bu ñu bëgg a ji dinañ teg gàllankoor ci seen ci li leen Mame Mbaye Mame Mbaye dem na ba ci biir xeeb ko parce que bëgg nañ dan quelques mois parrainage xaalis a koy def waaye tamit lii di élection présidentielle alal moo fay dem kon luñ mën a wàññi ci dooley Pastef ci xaalis mën nañ ko def waaye tamit ñi yor xel yi ci Pastef di doxal parce que Diomaye di kuy wàcc ci terrain di sànni xeer wala muy xeex waaye ci côté xel li mu doon jëriñ Pastef bari na ñu jël ko nag katañ mu tuj Ousmane Sonko post Facebook nan nan partagé li jumaay bind fajul mbir mi Ousmane yow la gars yi ragal yow la gars yi di xool lan mooy sa réaction du la wax li ngay def de tooguma fi pour conseiller la de la nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyi te jig na la nag sa weerug mars daa am noo doxale woon moo la may sa liberté bi ba tey booy exister ci politique ba tey jii discours bi nga am ak taxawaay bi nga am moo la ko may Ousmane Sonko du tëdd sa kaw lal ñu naan da feebar wala wéroo ba ab Idrissa Seck xamul lu mu àndal màggatum yoor yoor waxtu xëdd fajar mu koy ñëw sa sa kër nga koy accepté Ousmane Sonko man ànduma ci parce que la ma jàppoon moom la Idriss Seck def démb moo ñëw taxaw ci kanamu taskatu xabaar nan dem naa fa ak moto bu ma fa demee lii laa wax ak moom candidature Ousmane Sonko ànd naa ci àndu ci ndaxte bu lay fàttali mbiri Adji Sarr ku ñu tudd ci viol ku tudd ci mbiri diffamation di waxal loo xam ne mun na am waxtaane woo leen ko calmant yooyu ak somnifère Idrissa Seck wax naa ko sama chronique ci solution mooy kii di Abdoulaye Wade ak kii di Idrissa Seck maytu leen te pour man booy ragal dëgg-dëgg ragalal Idrissa Seck ndaxte Macky Sall loo ko mën a waxal ci àddina Macky Sall li mu nar ak li mu bëgg a def dala koy wan Idrissa Seck nag day matt ci kaw di ëf ci suuf moo gën a dangereux Macky Sall foofu kon maytu ko te Idrissa ci wàllu politique daa am lu mu ñàkk jàpp ni mën na ko amee ci bayre Ousmane Sonko bi mu lay seeti mi ngi pat préparé sortem bi parce que li mu bëggoon mooy matière Idrissa Seck mënul communication ci Macky mënul def li mu def dem nekk conseil économique social ànd ak Macky ba tey ji mu war a génn di ko xas du am sens day ñëw langaamu ci yow téye ci yow ngir mën a am discours boo xam ne bu ko tegee parce que fii loo fi wax ci Ousmane Sonko ñëpp bàyyi ji xel kon jot na nga wax yow tamit ndaxte boo waxul ñu waxal la mu doonoon gis-gisu buñ xataab ci Derklwis TV ba benn yoon incha allah